asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata fukki fan ak ñeent ci muharram muy weeru tamxarit di weeru jëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog benn pan ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fukki fan ak ñeent bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tee ci talaata ji rafet na talaata ju nekk des cee tere tere ak ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma àjjana te musal ma ci sawara allahuma inni asaluka aljanna wa astajiru bika min annaar allahuma inni asaluka aljanna wa astajiru bika min annaar xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen xam ne marchandisum yàlla lu seer la na ngeen xam ne marchandisum yàlla mooy àjjana xadiis bi at-Tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala inna silata allahi gaaliya ala inna silata allahi janna rawahu tirmidi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 soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre la yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre la yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 52 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñaar di so 19 heures 32 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñaar yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin